naa la Papis day tuus Papis day tuus boy Lamine Lamine ñeena na ñoo ñu doole man du ma mbër quoi man du ma Forza waxal ak Forza mooy wax ak Forza bu Faas ah. sama waay la sama waay la waaye. ñëpp nga mën a jël. waaw baax na jëlal kenn. lay ziar. si loxuma. Laye Pythagore di bëre dimanche ak ñaq jariñu di def fi open press am Kër Moussa. te bu rëy rek parce que Laye Pythagore moom doomu Kër Seyga la doomu Jandeer doomu Kër Seyga la kon doomu kër mu commune Kër Moussa bi yëpp la kon su amee open press am combat def open press bi fii duñu am lu dul am ci kontaante bu mag waaw. dimanche su ngeen di ñëwee làmb ja bon xam naa ni moom eh, Iba Mar moom xalaat naa ni du nu mën a antenne quoi parce que it minimum dinañ def plus de vingt car pour ñëw foofu ah waaw ba dimanche incha allah waaw. Ah. ñu ngi leen di nuyu di leen ziar tey nag ñu ngi kër Sega fii yaakaar naa dëkku Lebu de laay maa lay bëggee. waaw sëñ Babacar ñu ngi lay fay lu bëree bëri. ci loolu nag yaa ngi si jàmm. sant yàlla bu wér macha allah sant yàlla bu wér. tey ñu ñëw ci dëkk bi gis sa ay mbokk wër la autorité yeeg jigéen ñi xale yi ñëpp génn nga jëm ci bés sa mbokk mbay jóge sax Dakar ñëw nga jëm ci bés laay lu mu yëg actuellement nii. waaw sëñ Babacar dañuy sant yàlla bu wér a wér a wér di julli si Yonent bi di sant suñu ñaari waajur di sant lépp waaw tey dañoo kontaan trop trop parce que li nit kontaan ban dalee bu dee ba léegi kontaan dëkk yi mosuñu ko am parce que te lii nit am naa yaakaar kan tey dañuy yokk jom bu bëree bëri ba bu doon def benn tey war ko def ñaar ngir yokkute parce que jandeer tey yaa ngi fekk tund jandeer képp xam na ne jandeer tund làmb la làmb fii la cosaanoo jëm dakaar parce que fii la Abdourahmane jaay fa lañ dëkk Mbaye Diop dëkk fi sunu papa Ndaagu dëkk fi sunu mag góor Gueye dëkk fi xam nga kon la làmb cosaanoo boo ma fekkaatee fii tey xam nga sama biir dëkk dama ci am mbégte trop ak kontaan trop. Mhm. lan mooy motivation parce que ñëpp xalaatoon nañ ne Dakar ngay defee affaire bi nga ñëw fii def ko fi lu waral ñëw fii def ko fi. waaw dañuy wax rek ku tëggu na ni ku tëdd xamoo si nu olof Njaay di waxee. ku wàllu yaan sa rek dafa tëggul te lii rek laa doon rêve man lii moo nekk sama rêve xam nga indi lambu jandeer parce que lambu dafa demoon ba bëgga fay jandeer mu indiwaat jandeer xam nga indiwaat ko fii biir jandeer xam nga di waa jandeer yëpp yëpp yëpp xam nga waaw di wax waa yëpp yëpp yëpp yëpp xam nga ñu teg ma loxo may ma loxo mu indiwaat lamb ci kàttanu yàlla jandeer fii parce que mën naa ko am naa talent bi te gëm naa ko te la nekk Dakar dama ko jël indi ko fii parce que samay morom laa dajal Dakar def la li ko def commencé war beneen carrière si biir jantal fi commencé uti moom Dakar bu soobu yàlla. Euh, tey bu ñu waxee loolu parce que fi nga mujjee bi ngay mujjee bëre yaakaar naa da nga ñàkk sa combat yaak Marley depuis boobu ba tey bëri waatoo yaakaar naa. waaw macha allah parce que moom ku ne xam na ni carrière la rek ba ma dalee bëri ba léegi samay morom it laa bëreel man musuma yi laa bëreel man musuma teggi lamb ji ay combat jànq rek laa fi am damay bëre lamb mënoo daan say morom yëpp dama doon bëre dal maa ngi jugaat ak samay mbokk préparé waat pour le 14 bi fay leen bor boobu ni ma ko doon waxee depuis signature contrat yi rek dama leen yoreel bor te ci combat a fay ci a mooy ñaq jariñu ñaq ko xam xam ne mbër la bi nga xam ne moom làmbam day metti ci bëre ak ci xeex nga jël avance am est-ce que fi mu nekk nii laay ci conscience am tranquille wóor na ko ne est-ce que moom am na qualité bu daan ñaq jariñu dimanche waaw Babacar xam nga man lii sama problème que mooy man gëw ma ñaq jariñu xaw ma lim am xaw ma lim man parce que xamal moo tax man li ma gëm laa am ak li ma liggéey ci combat bi nii billaahi walaahi talaahi loolu laa gëm xool ma benn qualité am xool ma lem lu man li ma liggéey ak li ma li ma waa jandeen sax ak li ma sama grand yi dee le 14 dimanche boobu sooba yàlla loolu rek laa ñëw appliqué dem sama yoon du leneen uh-huh. kon kon su ma la noonu yaa ñàkk jëriñu ku dàq bëri loo may wax waaw ñàkk jëriñu <laughs> xam nga loolu tey yaakaar naa tey boo defoon micro trottoir wër laay bi a ko rek ñàkk ku dàq bëri yaakaar naa lépp ci man lay EPD parce que yaakaar naa suivre ngeen ma bëri naa fi takkusaan bu nekk. yéen ñaar ku dàq waaw ñun ñaar ku dàq bëre loolu sax ta wax man maa ko dàq bëre fuuf. foo teg loolu. man dama osé bëre man dama osé Babacar man ma neex laay bëre. billaahi dama dama dama macha allah waaye tagguma sama bopp mais damay bëre. yéen ci côté xeex tamit. waaw ci côté xeex ñu liggéey lépp lu war a liggéey. lépp lu ñu war a liggéey parce que yàgg na ça fait ngi taxaw yàlla suñu borom def na xam nga dem naa extérieur entraîné yi ñëwaat def fa 2 mois la ma liggéey privé la ci combat bi laa koy wane. soo xoolee sa bopp xool ñax nga gis ko mu gis la bi ngeen mujjee gis sa yàggul doole ba ma ko doon wax actuellement yi ñaar moo gën a ëpp doole nga ma rek ku ëpp doole rek sans faral sa bopp wala faral ko moom ku ëpp doole yéen ñaar. waa man xam ma li ma gëm man li ma liggéey laa gëm te li ma gëm mooy que ni man góor ëpp ma doole. ñaq laa wax de ñaq ngay bëreel. waxuma la ñaq man góor ma doole guddi doo wax si ñaq mi ngay bëreel seen doole yi. parce que xam la moo tax ma lool sama gëm-gëm laay doxee ak li ma liggéey moo tax ma wax la lay na yéen ñaar fi mu nekk nii kon am nga looy moytu si ñaq wala amoo looy moytu ci moom. amul lu may moytu ci moom amul lu may moytu ci moom parce que dañoo jàng bëre parce que ñun màgg ñu rek bëre dañoo mbapat ànd ak suñuy grand xam nga ñu tàggat ñu si bëre moo ñu du njaay promoteur bi damay préféré di ko nuyu xam nga moo ñu dalal baax tëggal ñu mbapat. dañu dañu fooyee bëri quoi dañuy fooyee bëri moo tax loolu làmb ji gën di neex dañuy gën di gën ay gaz wàll nag dañuy gën di bëri foo ñu coupe rek ñu bàttare Babacar aa maanaam tegante lu métti yéen ñaar seen diggante est-ce que mën nañoo xaar laay teg ñàq lu métti mais combat bi moom boo bëggee dëgg-dëgg mënul doon combat bu yombo man dama gëm ni combat bi mënul yomb parce que combat bu ñu préparé xam nga ay 4 mois 5 mois ñun ñaar ñëpp muy muy jàmbaar may jàmbaar kon man foofu noonu man séntu lu yomb sentuma yomb quoi billaahi wallaahi tallaahi sentuma lu yomb dama dama yaakaar ni lu ak ñoom Papis ak Demba ñëpp gis naan fi waa parcelle lay def ci yow est que du ne pression si yow waaw allah mooy profité tamit xam nga di leen di leen nuyu bu baax a baax a baax ku mel ni Papa Sow suma mag yu baax Yékini Senior suma mag yu baax ñoom Papa Sow ñoom Gora Sock Franc di sama yarak ñoom Papis ñoom Demba ñoom Baba ñoom Serigne Ndiaye ñoom ñëpp sumay nit xam nga di gërëm suma doomu ndey nag detulu ma dara Modou sama nit la sama xarit la depuis mu ngi États-Unis maa ko gërëm na ci combat bi bu baax a baax a baax waaw nu mu jàppee ci na ci côté bépp comme naka ci côté bépp maanaam ci contact yi wala ci lépp lu ñuy jàppalee nit waxuma la combat de hors combat lépp lu ñuy jàppale doomu aadama rek jàppale na ci jox na lay million lépp lu ñuy jàppalee nit jàppale na ma ci ñaata million la la jox ci côté bépp bu ñuy jàppalee nit pour mu jëm ci kanam rek jàppale na ma Ah. loolu doy na mais lim la jox mënoo cee ñëw. macha allah jox na ma jox na ma xaalis bu bari ma préparé xam nga macha uh-huh. fi mu nekk nii laay maanaam bu ma ko déggee xelam dal na bu baax a bu baax a baax xam nga moo tax sama xel dal maa ngi biir dëkk laa nekk ku mel ne suma grand Zal Mbaye di ma jàppale guddeeg ak bëccëg suma grand Birama Xuma dafa jàpp depuis ba dara du dara xam nga amatul lu may tiit. fi fi fi nga nekk nii kan mooy maire bi. ah kan mooy maire bi fii. fii Momar Ciss mooy maire commune de Kër Mousso. saal mbay nag dañuy ñaan yàlla ci kàttanu yàlla suñu borom mi nga xam te ni moom la dara teewul mu teg loxoom ci meeru Jandeer dama koy wax en wóof parce que ndaw la day jàmbaar di jàppale nit ñi Birama suma grand dama koy ñaanal yàlla ki nga xamante ni moom lu bëgg yàlla suñu moom defal ko ñoom gannaaw mëniiru ñoom góor ñoom ñëpp amul seen fay yàlla moo seen fay kon li tax ma laaj la loolu mooy que xam nga mbër dañuy bëgg tamit ngeen jàppale leen ci côté bii ñuy jaay est yow ñooñu ngay limb autorité yooyu ak zal mii taxaw ak ñeneen pare nañ pour jënd ay billets yu bëri ngir jàppale promoteur bi tëggalaam ji muy jamaykee loolu ñoom duñ ko wax de man maa Birama di dagg bi loolu amul wax dañ koy def dañ koy parce que ñoom du maa dafa yàgg waaw dañ koy def am na loo xam ne moom maanaam dafa am li nga xam ne jëw la ko xam naa foofu la ñuy jeexale Sénégal yi dañ la koy jëwee dañ ne laay dafa bari kersa laay du fecc est-ce que laay dimanche pare na pour fecc lu neex ngir amateuru làmb yi. waaw mais xam nga li nga koy wax rek mbëru dof du ma nekk ci mbedd yi di fecc yi. non fecc si làmb ji la wax ñu. wala may dóori dàqe. mais Babacar yàgg ngaa seetaan amateur nga. amateur yi xam nan ku ne xam na ne laay bu duggee làmb day xabtalu sama gars yi sax dana ma koy tooyee danaa ma boo duggee làmb da ngay boo nekkee ci mbedd bi nag waaw mooy loolu. mais est-ce que dimanche laay mën naa fecc lu neex. waaw bu soobee yàlla bu yeboo ñu xaar lépp. dinaa fecc dinaa bàkku dinaa tuus dinaa bëre dinaa xeex dinaa bëre dinaa daan bu soobee yàlla suñu borom. sa kàddu gu mujj gi lan la waaw kàddu gu mujj mooy di santaat di santaat di santaat bu wér a wér a wér di santaat waa tund jandeer bi xam nga di santaat waa tund jandeer bi di ko daggee raay booba ndox ma li may faral di wax rek raay booba ndox ma <laughs> loolu dafa dem ba dafa takk sama làmmiñ waa tey nag damay lim xam nga li ko daggee Kër Mousso kër yaa xam daara ndiireen jàpp daara bayax ba kayaar toor jandeer mbi jëm gorom Bambilor ba Kër Matar bàyyiwuma benn dëkk bépp gox boo xamante ne bii rek si biir jandeer la rek maa ngi lay woo ba gollam bàyyiwuma kenn waaw ñoom ñëpp maa leen oo di woo waa diaspora parce que jandeer jandeer yëpp en général ñu ngi si diaspora bi di leen woo ñu jàpp ci combat bi bu baax a baax a baax bàyyiwuma kenn bàyyiwuma di leen talal seen bu baax a baax ñu jàpp ci combat bi kontaan naa maa a kontaan di sant suma papa bu baax a baax monsieur le maire Momar moom suma papa la xam nga sama lépp la maa ngi sant di sant mu Lamine nee na seen kër cere lañ toog waaw fii waaw fii mooy jandeer fii la lëjum yee xam nga lépp am fii ceebu neex fii la sosoo xanaa di ñu may ay lëjum ñu yóbbaale maak Lamine ak Talla Ndiaye dama leen rayal <laughs> ak waaw di di sant suma grand bu baax a baax amoo fayam grand loota grand loota xam nga amoo fayam Manirou Ndiaye ñoom amoo seen fay dañoo yàgg ñoom dañoo dem ba dañoo bokk ci man waaw yàlla am seen fay yàlla na yàlla fay.